journée bi yaa ngi am jàmm bu dawee yow ñu nga ñu nga bandiwee loo may dawee ya moo bi tàndarma laa bëgg damay dem doogu waa lii dafa tuuti man jigéen moom da ngay sa boor merci dalaa fay fóon rek nga jox kullu muuma yaa ci gën ñàkk fayda sa mbaxane mi yow yaa soof te eh doon muuma du tey liggéey gëmal sa bopp kee waroo koo may bu la léegi bu ne ni bu subaa boo booy jënd da nga leen di fóon ñooñoon jox la bagage amul fóonante de l'argent même pas le fóon avec la l'argent la s'il faut boo del jaay te bàyyi sa ngañ ñi ngañ ñi ji bu waxee sa kanam gi mel ne fur na jàmbar del jaay fii dara desetu fi léegi foo ko teg bu subaa magasin ba ñoo ñooñu noq moo bi da nga ko dégg bu ñu waxee nga ne ma ngaññi sa kanam gi doo fon doo raay ta xam fissee soxna si eh. xam ne du si soxna maa ngi man koor gi koo koor gi damaa jàpp te xam nga damaa wóor da nga da nga wut tey. tey damaa wut barki yàlla. man man man man man man ñaari fan kase ñaari fan kase kese kese kese laa wóor yi yëpp dama kaa wóor. man sama yaay dama soo soo soo wóoree ba heure añ jot da ngay añ après nga continuer su su rekkite nga rees ndékkite nga ndékk. waaw man ndox kese laay naan ndox kese. man ndox kese a wóor damaa mën a wóor man ndox kese laay naan damay naan 9 litres. 9 ah. kese kese. ii 9 litres kese. kaas kaas bu tuuti non. moom mooy naan moom laay naan man loolu kese laay def ci kaw. waaye waaye wañaan wañaan yu bëri nag. kon dañuy yéeg di fàq ba ci kaw asamaan. si kon kon kon xam nga li may njëkk a jënd ah. lu muy ma du ma ci may ma ko ci may. kon kon kooku daa bon jaay balaa ñu guddee fii. wañaan wañaan wañaan xam nga joxoon nañu ko suñu xaalis keroog. tey tey koor bi dafa maa jàpp tey damaa sonn tey damaa sonn tundidinino minano tega pita si mootu mbeleen côté bee dafa am melentaan pousse sama de fee dafa am waaye dangaa def lu ñaaw te ma teg sama bët bi soxna dama lay dolli rek bu ñu daje woon ci mbedd mi defoo lu ñaaw billaahi du ma wax ci yow waaye kii ab muuma la matut jàppee ko comme sa frère boo dëkkaloo ko matut kañoo ñu boo ko defoon sax yow la. yaa ngi may dégg a jaar ko loolu yëpp sa yoon bu ngeen amee fu ngeen jot a jaar ba nga fekk am njaayam nga di ko dama lay dolli. dëkku diina diina lañ ñun eh ay musulman lañ soxla si. fii du Cameroun fii Sénégal la. léegi boo nekkee Sénégal ba ci. kee dafa matut leer na ne boo nekkoon dama ne mu ni la xaa doo yóbbu njaayam mii góor gu ni léegi dem doonu muuma dem. bu dama dama lay dimbali rek al muslimu àqul muslimu julli jullitee mbokkam gis nga lii nga jël boo ko yóbbu itam sa koor du baax ku ko lekk riba la ndax jox ma ma dem jox ko muuma bi bu ëllëgee ngeen séq leneen nga dem doxi lu baax moo ëpp solo ci àdduna te yow nii nga mel ku la xool xam ni bonoo àdduna la jàpp ak falax ko joxoon ma delloo ko ci ngay xam ne lu baax rek am njëriñ teg maa baax na jërëjëf jërëjëf léegi dellu ci tey ba léegi lii bu mu la dalati nii rek la ñuy def nit ku matul dafa war am ku koy jege di ko mottali ndax cinquante ak cinquante cent rek lay doon mais cinquante plus soixante cent dix lay doon nit ñi nañ leen dimbali yàlla tax kee matul mu gën a yóbbu jaayam nii bajaan mi itam ku ko ñus mu jël mu moom bu ne fii di ndabante naan am na lu fi xew man danaa ko wax eh, boo léegi yéen dootoo leen nelaw yéen weeru koor gi nit ñi jaayi tàndar ma nga xam ne léegi ndogu jot yéen tëdd fii di nelaw xaaral ma dem yow yo ndogu bi ndogu léegi mu jot ndogu xoo xoo léegi mu tudd. jël sa bos jël sa bos itam. nelaw yàq na sama nelaw yëpp yëpp yëpp. waaw nelawaata moom nelawaata gëm naa gëm naa gëm naa gëm naa. yaa yaa ngi dégg si xam nga yow yaa ngi nëbb ko ba pare bi may nelaw yaa ko nëbb. ba tiiri maam yàlla nëbb ma ko ak ma tàpp tiiri maam yàlla nëbb ma ko. fii fii laa ko tegoon fii fii fii fii. Eh, eh, léegi lu ñu waxoon yaa moom lu ñu waxoon yaa moom. sew sew sew sew. ma ma fi laa ma tegoon ci kese. man man damaa nelaw sa nelaw sa yàggu sax. taatum taatum moo fi nekk. Cheikh yaa ko sàcc. billaay sàcc ma ko billaay sàcc ma ko ci laa la tegoon ñu ñu nelaw ñu ñaan ñëpp. man xam xam nga waaw kay bu may nel maa ngi génn fi am ko ko sàcc. xoolal ma gis benn sàcc bu sooy yëre bu wax. nga dóor ko da nga ko war a jàpp nga dóor ko nga dóor ko. boo boo dama doon génn moo tax waaye su su nekkoon génn ma kon dama koy dóor. moo tax wañaa mooma tey dinañu jàpp dinañu naafalaan dóor ñu ba ñu bëgg a dee. léegi yéen ñi dem ñu dem li ñu koy wax. wax ko réer na nañ ko wax réer na. ñu wax ko wax ko janax janax bi ma wax sàcc janax yow yow kër gi kër gi kër gi li mën jabax est-ce que kooku sàcc ko mooy mooy mooy booy boobu noonu te te te te tam doon sa tànd moom te te tam ñaaw tam tam def nii kooku kooku mooy grand rek mooy mooy mooy grand mees mees mees wattum sàcc la war nga dëgg grand boobu sàcc la nañ dem seen kër kooku sàcc la nañ dem seen kër Cheikh nañ dem seen kër war nga dëgg Mbacke ak Cheikhou yi ñoo koy